foofu Amet Lac Rose la koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar na fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na momoo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër pap sek yi invité d'honneur mu du moodu xarañ loo le roi des arènes franc goro sok talfa dam seen guy gi gargadeur sponsor leader mu ne e production King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs ci Iboulaye xale yi mu tëgg rek nar a téye ji làmb ëllëg la lay def ba ñoom liiru jaan di leen seen mu dóor la ci suuf waaw moor man amul ma koy tontu ndax waru mën bëre moom waru mën bëre moom billaahi waru mën bëre sax moor mais làmb moo tëra di tamit léegi gars sax maam moor ah. man bañ ma seesee xëy na ñàkk pexe moo tax ma jël moor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 sunu doom euh, kii réparé da ciy bëre damaa bëgg mu ñëw su fekkee li muy wax dëgg la ci moom nee na waaw ministre bi su dee li wax dëgg la ci moom na ñëw jàppale mbër yi ndax combat bi dafa yàgg mbër yi amatuñu dara jeexal nañu tàkk ne leen jëndal ay billets xale yi génn daal di dem ñu fees sax ndax jour boobu feet la jour boobu feet la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 ñëwal nga jàppale xale yi yàlla fi yàlla teg ci maire Aliou Sall ba mu fi nekkee nii la ko doon defee Aliou Sall ñu ngi jàppale xale yi guddeeg bëccëg Aliou Sall kon nag monsieur le maire nga ñëw Aziz Ndiaye dina ñëw kii la oto yi nekkee ñoom Pape Mamaak ñoom Andaw ñoom Kor Ndiaag ak ñëpp ñoo ngi woo ñoom Moussa Fall képp ku dëkk Guédiawaye ak Andaw Ndiaye képp ku dëkk Guédiawaye nekk autorité ñoo ngi lay woo ñoo ngi awaa kër famille Baara Gueye ñëpp ñoo ngi leen di woo ñun Guédiawaye lañ am Guédiawaye la ñuy tiitaroo commencé ak jàmm xale yëpp mobilisé Guédiawaye gépp mobilisé Guédiawaye gépp mobilisé ñu dem arène nationale fees ko bëre bëre bi daan daan ñëw Guédiawaye feete ko ñaar nañ ci am ñaari combat Youssou Ndour ak réparé ndax say ñun géej way leen ama géej way la ñuy tiitaroo leen lu gé Youssou Ndour yàlla na la yàlla may ndam seeg guy dimanche repatam yàlla ko yàlla may ndax am lu du géej way xale am jom nga am nga fulla am nga fayda gëm nga sa bopp mën nga li ngay def yàlla na la yàlla fal cet làmb nag moo waxul dëgg su waxoon dëgg bilaay dépassé fi nga bu yàgg waaye yàlla na yàlla suturaal ba dimanche ak jàmm daan Sadji gi ah daan Sadji gi mais Youssou waaw euh, da ngay xamante ni mosagul dégg mu <laughs>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 wax nekk di woo tam sama waa dëkk waa waalo man je suis fier waalo deret waalo mooy daw sama yaram mais teewul dama ay mbokk bool bool ndax sama taw bool bool laa ko tudde di nuyu sama papa Saliou mi nga xam ne moo ngi nekk Pàq Lambaay kon man lenn loo xam ne moo ëpp la moo ko bool waaw sama tànd day say bool kon ñun ñëpp benn la victoire bi fii lay des yaa ngi dégg mais damay ñaan yàlla yàlla suturaal may ma ndam mais làmb ji lu mu rëy rëy su ma ko daanee sax fii lay yem mais tamit damay ñaan yàlla yàlla suturaal may ma ndam kese. ma ne ko Youssou Ndour nee na góor mos koo dirigé wu la ba nga soog mooy li ñu wax rek man ñi ma bëree moo bëriwutoo ñoom ñi ma taxaw xeexa moo xeexutoo ñoom te yéen yéen yàgg ngeen si làmb ji da ngeen teg combat teg samay combat yaa ngi dégg Mor mu dalee bëre ba tey du ma wax nag mais moom champion la ndax ku def onze combat onze victoire kooku ndaanaan la. mais man tamit na nangu sama ndaanaan bu dee victoire maa ko ëpp fuuf yaa ngi kon xëy na nii moo demee rek mais kon caat daaw dafa sax la waroon bëreel yaa ngi dégg wala ñu am ndaw mais comme que yàlla dem na ni man la war a bëreel di ñaan yàlla yàlla suturaal may ñu ndam kese. mu ne jour man ni ma xeex yëpp maa ngi koy xeex depuis mu nekkee xale ba judd ba ni ma màggee maa ngi xeex comme que nee man aw ma bañ sama ngor sama gar bi moo tax sama bëñ dañ. déggoo ma de sama ngor na xool sama premier combat. xamul ku moom. na xool foofu ba ma ñëwee gars yi bari na daf seen jëmmi mais man du ma ragal. tamit nee na ay bëñam wane na ko foofu mu mat. waaw dem doole de. siñ naag waaw bu ñu làmb ja ba lan demee ba. waaw bu siñ boo demee ngeen xool wax dina siñ. du siñ ah non non. Ah? non non siñ ñu am mbëri nit ñi am. waaw grade boobu faamu am ko. ah da nga koy da nga ko ba a defal médaille. waaw mbëri yëpp a jàll fu mu toll nii. da nga ko bëgg a a moom français la faamu andi ko faamu duma ko Mor dama koy duma. bi muy bëre parce que Mor dama ko gis muy boo xam ne ak lu waay waxati waxati xam ne il est technique ba pare dafa gaaw parce que day jaar ci ay flanc day bëtt day def ay rotation est-ce que tamit Youssou Ndour moor bëre boobu muy bëre Youssou Ndour mën na koo contenir ba du yàgg ak moom foofu. moom nee na si kan roy. moom ah. ah nee na bëgg na ah? si baa Gaye waaw waaw ah, kon jeexal nay wax ñun ñoo ngi si école bi suñu papa dafa ñoo jàngal bëre jàngal ñu lépp.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 waaw mention spéciale pour Kandji ndax lu may defal damay tëdd ba guddi sax mu woo ma na ma kaay génn maa ngi sa bundu kër maa ngi koy nuyu bu baax Kandji Ibou Dieng tamit maa ngi koy woo Modou ñun quartier bu ñu dëkkee la Modou Gueye la ñu woo ñun waa Pikine nga xam ne côté boobu la ñu dëkkee ñëwal nga jàppale ñu si combat bi soxla nañ jàppale dix bologu bee ba ñu ko jënlee dañ jël ndax fi nga nekkee tamit mooy loolu booba tey ñun yow lañ am yow la ñu tiitaroo njagal laadu maa ngi ko Lat Diop maa ngi koy woo Lanos maa ngi koy woo baax a baax Baye Ndiaye Omar Mbaye Kor Ndiak ñoom ñëpp maa leen woo Maas Maas jëndal na benn bologu be Alaaji Fall jëndal na a bee ñoom ñëpp jëndal nañ ma bee maa ngi nuyu ñëpp papi magu fi sa Balla maa ngi koy woo si combat bi mu ñëw jàpp si Balla Gaye 2 maa ngi koy woo tamit si combat bi gaa moo ngi ciy jàpp lu mu am lu ne moo ngi koy def mais na si gën a jàpp ndax booba tey bàyyiwul saa kees kooku moom amul lu ñu ko fayee ñun ñun ñun mbëru géej amul lu ñu fayee saakees kon te man maa taxaw ndax lu ñu xewlu lu ne day ñëw teew xeebul mbër mu ndaw xeebul dara dañuy toog sax mu jékki-jékki nañ wéef naa la dara kon kooku ndaanaan la du nuyu tamit pëlu kolda yi pël pëlu kolda yi maa ngi leen woo bu baax a baax a baax waa fulaado balda balda yëpp maa ngi leen woo yaa may dégg ama wax nag ceex la ama balde wax ceex la maa yow xamante nañ waagwaan maa ngi koy woo borom Gàmbi di woo ñëpp waa waalo tamit du ma leen fàttewaat ndax làmb ji dimanche dama war safar damay safar fee làmb ja waaw dama yóbbu mburu yóbbu ay soos ah. yee lu nit musul def laay def ñëw ñëw duma ko daan ko dem màggali yee grand onda tamit du mi xam ne gaay la ñoo ñëpp maa ngi lay ak mi nga nekk ñëpp loo koy wax Ibulaay maa ngi koy ñaanal jàmm yéenay bi waaw loolu feer la mooy li ma rek dañuy safar foofu dimanche dimanche loolu waa maa leen woo baax a baax yaa ngi dégg Alaaji Fall mi ne mooy jëwriñ bi maa ngi woo ñooñu ñëpp Alaaji maa ngi koy nuyu baax sama axlu bay Rasulullah waa Cambérène sama papa bi nga xam ne foofu lañ ko denc maa ngi ñaan ko yàlla yërëm taxaru àjjana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 foofu Amet Lac Rose la koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi bu yaraax ak gorofil sëy ji na fa jàkkaarloo ak joona bi seen sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na momoo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër pap sek yi invité d'honneur mu ne moodu xarañ loo le roi des arènes franc goro sok talfa dam seen guy gi gargadeur sponsor leader mu ne etdr bu King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs ci Iboulaye production xale yi mu tëgg rek a làmb ëllëg